jërëjëf euh, salaamaaleykum mbooloo mi euh, su ma wax nag du gudd parce que daanaka lu ñu waroon a wax yépp su ma naataangoo yi nga xam ne ñooma jiitu fii ci seen kanam wax nañu ko maa ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay ci seen fit ak seen dëggute ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex te dara waralu ko lu dul bëgg Sénégal nekk ci ay loxo yu mucc ci ayib mais aussi Sénégal li nga xam ne moom lañ ko namal mooy li nga xam ne faatu wax na ko sànq moom la diaspora bi di dund ci yeneen i dëkk euh, démb rek bàyyi bàyyeekoo Paris ñëw mais tey boo toogee xool situation wu Sénégal Euh, lenn mooy doon jàngat bi moom mooy euh, liberté yi nga xam ne moom la ñu xeex ba am ko fii depuis 2012 daanaka makki sàll dafa taxaw di ko nërmeel loolu moo tax waa F24 wax nañ ko sànq euh, dañu woote mobilisation citoyenne ci jàmm ci dal mais aussi ci fit bu mat sëkk moom mooy lan. mooy wax Macky Sall que Sénégal ci anam yu mu ko jotee mu bëgg ko mu bañ ko ci noonu la koy bàyyi mooy ci dal mooy ci respect des libertés respect des libertés yooyu tey boo fi ndërmelu gis ngeen ko wax nañu ko lu ëpp mille personnes ñu ngi nungu si te dara yóbbuwu leen fa lu dul bokk ci benn organisation politique wala bokk ci manifestation wala en tout cas wax seen xalaat détention préventive yi wala détention provisoire dañu ko utiliser fii ci ay adam yi nga xam ne lu ko tax a jóg du dara lu dul euh, punir adversaire politique parce que bu nu taxawee bëgg a gëmloo askanu Sénégal que nit ñëw na fi ñu jël ay tuuma teg ko ci ndoddam dañu koy bàyyi parce que dafa am liggéey dañu koy bàyyi parce que dafa am doom laaj buy samp moom mooy Ousmane Sonko maire yi nga xam ne tey ñooy maire wu Kër Massar wala maire wu Parcelles Assainies wala ñeneen ñooñu amuñu doom amuñu liggéey amuñu sas donc wax jooju wax ju yàqu la yenuwul maanaam euh, luy samp moom mooy tey détention préventive bi nu ñu koy utiliser fii Sénégal daanaka. du mille détenus yi rek ñoo nekk otage bu Macky Sall tey justice ci boppam dafa nekk otage bu Macky Sall lu koy fiir moom mooy procédure yooyu yëpp nga xam ne sumb nañu ko te la plupart wóor na leen ni du antu luñ ci damm nekkul lu dul jël nit ñi nëbb leen jaww ji le temps que effectivement ñu dérouler seen plan tey nekkul sax indépendance de la justice bi nga xam ne faral la ñu koy wax moom moo nekk en cause mais c'est que dañuy jël cour justice ñu dévier ko maanaam dañuy jël ay dossiers yi nga xam ne dañ koy dénaturer dévier cours de la justice finalement juge yi ci seen bopp mbir mi sax dafa ëpp ci seen loxo parce que dañuy jël ay procédures cadencé ko teg ko ci benn circuit wóor na leen ni du antu mais ñoom luñ ci damm moom mooy rek tëj ay nit loolu nag comme ni ñu koy waxee kenn moo ko mën a xeex muy askanu Sénégal F24 pare nañ pour xeexal askanu Sénégal mais est-ce que askanu Sénégal pare nañ pour xeex rôle lu F24 lu muy def tey moom mooy devoiru intellectuel devoiru leader politique moom mooy lan moom mooy éveiller conscience publique maanaam wax leen tolluwaayu réew mi wax leen ne Sénégal daam ay ponk ak ay charte yu ko lal am jaar-jaar mënuñu nangu nit ñëw. ne pare na day dem ba pare bëgg a nërmeel li nga xam ne moom mooy suñuy acquis loolu ñun rek ñoo mën a xeex xeex bi mais buñ lay xeexal day fekk nga pare pour xeex laaj buy samp moom mooy est-ce que askanu Sénégal pare nañ pour wëyal xeex bi wëyal xeex bi ci yan anam ci dal ci jàmm du dara lu dul wax nañ ko plan d'action bi nga xam ne sumb nañu ko nu ko dérouler mais aussi Macky Sall président la gouvernant la. mën da jàpp ay nit yóbbu leen kaso léttu leen firiwu leen parce que ñi ñu tuumaal ñëpp am na ñi nga xam ne sax ay élèves la ñu woon dañu jóge woon école di jibbi si ñu jàpp leen tey amul benn complexité bi nga xam ne mën na justifier tey ñu leen téye ay weeri weer wala ay nit yu mel ni joomaay wala ñeneen def juste benn post ci Facebook mais loolu lan lañ ciy gëstu comme lu ñuy wax ci olof lu ne fàggen du ko nataal donc tey lu tax ñooñu continuer nekk ci kaso bi du dara lu dul dafay utiliser détention préventive comme peine déguisée pour sanctionner ay adversaires politique loolu daf ko wóyal ba jàpp bu nga xam ne jàpp nañ ko Ousmane Sonko xaar ba jàpp ko ñu compiler ay accusation ay déclaration laaj bi sampu moom mooy procureur fan la nekkoon ba muy def déclaration yooyu comme ni ñuy wax la défense du droit et toujours immédiate tey mënoo ñëw li nga xam ne am na amaat amaat nga xëy xëy ne léegi dama lay jàpp parce que loolu la woon parce que c'est pas prescrit loolu amul maanaam ban ordre public ngay maintenir ordre public bu ñu ko mettre en cause tu le défends immédiatement loolu donc da lay won ne dañu décider jàpp ko après ñu ne foog ñu wut ay motif mbir mi nag du dara Macky Sall ëppul fit kenn Sénégal. wax na ko caat ak ñeneen ñi fi nekk la plupart mën nañ combat bi pour mu ñëw mu gëbloo ñu ñaari mbir bu ci njëkk moom mooy day rétablir démocratie tey la waalo gën a aay mu ne tey day rétablir état de droit ñu yóbbu ko cour de justice de la CEDEAO mu condamné ko mu ne du ko jëfe mu am fit ak sañ-sañ ne day digalaatee waa Niger ñu sangu alors que moom nee na du sangu parce que charte ba nga xam ne ca la juge yi sëkkandu ko pour condamner ko respecté wu ko loolu aussi pare guñu ak moom danañ ko dox ci yeneen i eh, jamono. mais lu ci mënti am moom mooy foofu laay tëje moom mooy euh, mobilisation bi tey la war a gën a am dayo tey Sénégal wax naa ko sànq F24 dañu leen di jottali tolluwaayu réew mi peut parce que ñun dañuy gis wala dañuy xam li nga xam ne askanu Sénégal xamu ko suñu devoir la suñu devoir historique ñu wax leen lan moo am mais bu loolu weesoo bu ñu éveillé sénégalais bu nekk boo mu gis dëgg warta gis dëgg di topp leneen wala muy xool feneen dafa war jël responsabilité am bu jëlee responsabilité ci anam yooyu lay mën a wattu cité bi mais bu wattoo cité bi wattuwu ko pour kenn da koy wattu pour boppam parce que tey Ousmane Sonko la Diomaye fay la wala keneen mais suba kan la n'importe qui demain y compris les journalistes mën nga ñëw te happé broyé par la machine judiciaire est-ce que xeetu Sénégal boobu la ñu bëgg déedéet Sénégal bu ñu bëgg moom mooy muy pour suñuy njaboot muy pour njabootu magistrat yi muy njabootu force de sécurité wu def et de défense yi du dara lu dul lu ñu bëgg moom mooy seeni doom suñuy doom dund ci benn Sénégal bi nga xam ne kenn du la inquiété parce que da wax sa xalaat benn Sénégal bi nga xam ne booy liggéey kenn du la yóbbu kaso parce que tout simplement da ngay def sa liggéey mais aussi benn Sénégal bi nga xam ne dañu koy teg ci dëgg mais aussi lal ko ci ngor comme nu ko. Euh, le doyen Mbodj waxee sànq il euh, n'y a pas de paix sans la justice euh, donc bu ñu bëggee jàmm am foog ju dox jàmm moom nag day woote jàmm mais du dox jàmm léegi nag fu may tëjee moom mooy askanu Sénégal ñoom xam nañ lu am léegi mbaju kanam boromam moo koy fajal boppam wasalaam.